yàlla defuloo mbokki internet Kabir TV ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ñi dikk ak yéen ci xibaar yi ci kàddu gi ngeen ànd cëkk soxna Fatou Gueye ci xarale gi ngeen fegoo cëkk Mansour borom daara ji ca assemblée nationale ak coow ya fa amoon maître Baboucar Cissé avocat député bi di Amy Ndiaye ñibbi daldi déposé ab plainte ngir jëmale ko ci député bi di masata Samb ak député bi di Mamadou Niang ca wàll wa ñoom ñooñee ñu jox plainte bi di Massata Samb ak Mamadou Niang daal di bindaat ab plainte eh, seen naataango bii di Amy ñibbi Gniby eh, ci ak fàttali rek Amy yee ñibbi eh, bokk ci coalition bi di benn Bokk Yaakaar daal yëkkati woon ay kàddu yoo xam ne tegginewu la jëmale ko ci Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaty mu nekk ci guddi gu bët setagul moom si Sitor mbay bu AFP gannaaw ba mu nekkee ci ab garde à vue ci bés yi ñu weesu ca section de recherche de la gendarmerie gendarmerie bu Colobane ngir wàllu luubal la ci koppar yu toll ci ñeent fukki millions ci suñuy koppar beneen plante daal di teguwaat ci nduddam avec un préjudice de quatre-vingt-deux virgule cinq millions ci suñuy koppar. gannaaw jàpp ko journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang juróom-benn fan ci weerum novembre ci fësal ay information militaire gannaaw ba ko soxnaam seete woon ca prison bu Sébikotane niki dimanche ñeent fan ci weerum décembre 2022 daal di am ko jaaxle si wér gu yaramu këram ne dem na sax ba mënul dox mënatul wax te it ne mu ngi woo opinion nationale et internationale ak ñii di autorité yi ñu jël seen ay disposition bala muy yu jéggi dayo kii di maître Moussa Sarr avocat journaliste bii di Pape Alé Niang ne dinañ ko auditionné ci dossier bi àjjuma juróom ñeente fan na ci weerum décembre bi ñu dëkkamal ak le juge du deuxième cabinet gannaaw audition bi ñi ay avocat mi dinañu mën a déposer ab liberté provisoire xibaari biti réew dooree ko ca Guinée Conakry ak massacre stade ba fa amoon Moussa Dadis sa kamara daal di àddu àddoom bu njëkk niki altine juróomi fanna ci weerum décembre au procès du massacre du stade de Conakry waaye lors d'une comparution express de sept minutes ngir àddu ne il n'était pas en mesure de comparaître ndax jafe-jafe wér gu yaram président bu tribunal bi daal di koy jox benn semaine bu ñu sukkandikoo ci RFI càmmali ak ñeent fukk ak juróom benn soldat ivoirien ya ñu teg loxo ca Mali juróom-benn fukk ak ñaareelu sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO e jeex ni ki dimanche ñeenti fan ci weerum décembre CEDEAO di sàkku fii ak benn fan ci weerum janvier ñu bàyyi ñeen fukk ak juróom-benn militaire ivoirien yooyu ñu teg loxo ca Mali bila la yoon ñu dem ca Soudan militaires yi ak civil yi daal di signé ab ngir dakkal la crise politique niki altine juróomi fan ci weerum weerum décembre ca crise bu métti boobee nga xam ne mu ngi dox gannaaw coup d'état ba fa amoon na ca Afrique du Nord-Est bu ñu sukkandikoo ci fi ca biti réew ba tey bila yoon ca Tchad gannaaw manifestation ya fa amoon na ñaar fukki fan ci weerum octobre 2022 tribunal ba daal di daan na ñaari att ba ñetti ati kaso ah, ci ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari doomi aadama ya ñu fa tegoon na loxo ah, ca prison bu Korotoro ah, sa Tchad procès boobe ñu amaloon na ko ci huis clos sans avocat et sans médias indépendants ca Afrique du Sud ak le parti au pouvoir doon janoo ak taskatu xibaar yi altine juróomi fan na ci weerum décembre gannaaw rapport bi nu fësal ni kii di ci réew bu Afrique du Sud ñu war ko débattu ni ki talaate juróom benn fan na ci weerum décembre gannaaw ba ñu ko tuumaale wuru ca moom Cyril Ramaphosa ca loolu la ANC national africain di wane soutien eh, ci njiitu réew Afrique du Sud Cyril Ramaphosa lii moo furuuse woon ci ay xibaar ngeen di wéy di ànd ak programme Kabir TV ci kàddu gi ngeen àndoon ci ko soxna Fatou eh, ci xarale gi ñu fegg woon ci ak Mansour daara ji